تقطع عليك صلاة الله ثم سلام فإن فؤادي عندك الدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلام سنت يا الله جلسي مولانا رسول الله الله عليه وسلم يعني يا الله ينقر ماندي مباركم يعني نجوك على دفل سي بسو ماقبي دي عشرة li bés nga xamante ne bés la ci mbooleem xeet yi nga xamante ne yàlla def na si ñoom aw aw bés bu màgg si muharram bés bu màgg ci at wii nga xamante ne mooy atu xeetu seyduna muhammad gi yonent yàlla muhammad bi mu jógee ko màkka war a dem medinatul munawara si la atu jullit ñi tàmbali yonent yàlla muhammad keroog bi mu yeggee medinatul munawara si la jullit ñi am seen atu bopp moo tax at bi ñu koy tuddee atu hijriya muy at boo xamante ne yonti yonti yi nga xamante ne yàlla yónni woon na leen <coughs> ci àddina ak seeni xew-xew yépp bi leen di yàlla di may ndam ak mucc ak muccule moo leen ko mayoon si bés bi daa Ashura ni yeneen yi nga xamante ne moo jiitu ñenn si yonent yi di yonent yàlla nuux sax lañuy wax keroog si ashura six mois gaalam googu bi muy daw yàlla nga ko dimbale woon mu taxaw ci benn doj bu ñu tuddee juut si bésu ashura la woon yonent yàlla aadama si lañ ko dugal àjjana wante si lañ ko génne àjjana moom moomu di bàyyu mbooleem yonent di abu bashar si zahir di yonent yàlla aadam yonent yàlla ibrahim moom ak namruus ba ko yàlla di muccal sa safara sa ak pexe ya namruus tegoon yépp ngir lor yonent yàlla ibrahim yàlla moom ko muccale woon ci bés bi ñu tuddee ashura moo tax seyduna muhammad sallallahu alayhi wa wax na ci màggaayu bés bi di ashura ñëw fekk waa medinatul munawwara di ko oor di ci fàttaliku seen yonent muy Muusa alayhi salaam ba yàlla labale na ak gàngooram ga sa géej ga ci bésu ashura la woon yoon ci yàlla dal di ne leen lu tax ngeen di woor bés bi mu ne leen ñu ne ko ci la suñu yonenti Musaa amoon ndam ci na ci lañ labaloon na ci géej gi ci xissa boobu nga xam ne ñu ngi koy nettali yonent yàlla Muhammad ne leen man maa leen gën a yey si Moussa yéen a ngi koy oor man dafa yey si man dinaa ko oor yonent yàlla Muhammad waxoon ne nag niru du léegi yéen jëf damay woor tashwa mooy juróom ñeenteelu fan gi lay oor oor fukkeelu fan gi digal xeetam du lu war si ñun wante ku ko mën rek boo ko tu def baax na ini kuntu umirtu bi sawmi yawmin ashura faman faman shaa saama wa man shaa taraka kon dafa ne daf ma digal sama ket, ngir ñu woor ashura ku ko na ko def kum sop na ko def kum sop na bàyyi kon li mooy loo xamante سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحنكو عائشة رضي الله عنها من جلين سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يوم العشرة يوم التاسع نين يوم الأحد عشر وأكثرهم على أنهم يوم العشر ني وخنا ني بسو جروم نينت فانغي ñenn ñi ne ashura mooy bésu fukki fan ak benn wante ñi gën a bëri si borom xam-xam yi ñu ne ashura mooy mooy bés bi nga xamante ne daal mooy fukkeelu fan gi nga xamante ne moom la yàlla maye ndam si mboolem yu dul kon xeetu Seydunaa Muhammad gi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may na leen ci barkeb weer wi nga xamante ne mooy ashura seyduna muhammad daal sallallahu alayhi wa sallam si lañ reyoon ñaari sëtam yooyu di xasan ak xuseyn ñaari xe ndaw ñoo xamante ne ay lañu woon Seydina Muhammad Seyna Aliin moom moo nekkoon seen waajur bu góor nga xool bàyyi ngi wax ne sa karbala la daa karbala zurtu xuseyni tawassula sa karbala lañu boomee kii ñuy tuddee Hussein Hassan ñoo ko rey ci bésu tam xarit niñ ko reyee ci bésu tam xarit ay noonam moom Hassan ñoo dajale xaalis bu wari jox ko jigéenam jox ko jabaram ne ko dañoo bëgg nga defal ñu tooke si reer bi nga xamante ne moom la war a reer moom Hassan ngir mu dee soxna si ne leen dolli leen ma noonu yi dajalewaat xaalis yëkkatiwaat joxaat ko mu jël tooke bi def ko si reer si si si ñeex mi si ñeex bi nga xamante ne mooy ñeexu tam xarit bi ñeex bi mu war a reere si lañ def tooke bi biñ ko defee tooke bi soxna si jël xaalis bi Xasan bi mu jëlee ñeex mi lekk lekkaali na tooke gi bi ñu salaatu xayru mi na naw mi ci la génn àddina Useyni ñoo ko rey si Karbala noon yi daje ne nañ ko woo mu ñëw mu fekk suñu si diine bu ñu fekk see si diine si wooteb maamam ñu daldi ko bóom daldi ko rey ñu bind ko leetar ne ko lañoo nekk mbooloo bu soxla woon ku ñu tegtal ci diine te yaakaaruñ ci ku dul yow ndax sa maam sa maam moom mooy yonentab xeet bi te yow la xaar ngir nga gindiñu jubal suñu mbooloo nii la Ousseynou waxee ne moom day dem soxna si ne ko buy dem mu ne ko dinaa dem da ëllëg yoomal qiyaam bugguma dajeeg sama maam maam gàcc mu dem yéeg fas wi ba foofu nga xamante ne fa lañ ko wooyee gaa yi dal di ko wër biñ ko wëree rek dal di ko ne fii tey doo mucc sa bakkan bi lañ soxla mu ne leen looloo neex yàlla nii lañ jàppee surtout Seydina Muhammad boobu jël paak jaas yi daal di ko dóor ba tàqale bopp bi ak jëmm ji fala seytaane jële occasion mu sax football ne kontaan nañ ndax rey nañ surtout Seydina Muhammad gi bopp bi ñu koy bërëng bërëng boobu si la yenn boroom xam-xam yi ne fala seytaane inspiré ne kon war nañ ut lu mel ni bal di ko football kon am na ñuy def ne mbégte la si jullit ñi wante déedéet du mbekté ndax li tax du mbekté ñaaru setu sayyiduna muhammadi sallallahu alayhi wasallam di Hasan ak Hussein ñoom ñëpp si bosutam karit la ñeen ray kon ñaan yalla yalla jox ñu seeni barke yalla defal ñu ndam si atu wess wi 1446 ñaan yalla lepp lu ci barke yalla ñu ko yalla defal ñu <clears throat> fas yéene jàng ñaan wi ñaan la goo xamante ne wax nañ ne képp ku ko ñaan si bésu tamxarit di nga fekkee déwén ñaan yàlla yàlla boole ñu si xaaj bi jëm déwén yàlla mi man sañ ko yàlla ñu ko yàlla defal ca barke Moustapha sallallahu alayhi wa sallam bismillahi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 حسبي الله, ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله ملاء ميزان ومنتهى العلم ومبلغ رداء وزينة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلى إليه سبحان الله عدد الشافعين والوتر وعدد كلماتي الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين فهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله ملا ميزان ومنتهى العلم ومبلغ رداء وزينة العرش لا من جاء ولا من جاء من الله إلى إليه سبحان الله عدد الشافعين والوطر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك سلامة برحمتك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 تعالى على آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا والسلام في الآخرة وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام في جميع مراداتنا وسلام في أهلنا وسلام في حركتنا وسكنتنا وسلام على الإنس والجن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة yal na yàlla rafetal suñu àddina yal na yàlla rafetal suñu àllaaxira yal na yàlla rafetal suñu àddina yal na yàlla rafetal suñu àllaaxira yal na yàlla nekk suñu ndimbal si zaahir si baati ñu ngi ñaan ci barki bésu tay bi yalla ñu yalla jox ci càkkutéef fi yontu yalla musa febar na 40 ans wër fu nek ngir mu am wér gu yaram mu te kéro si Ashura le ko yalla wax ni ko musa mu ne ko wa mu ne ko sa febar bi yag na mu ne ko yalla ya ma ko gëna xam mu ne ko ndax xam nga garabu nangam mu ne ko garab gogou si laay takk sama njowaan bi si laay yendu yàlla wax musa ni ko garab googu moo lay faj ñoo ngi ñaan ci faj googu mu fajoon musa ci Ashura yàlla yàlla fajal jàngoro yàlla na muccale woon yontu yàlla Ibrahim si Namruus si noon googu yàlla nu yàlla muccalee noonu yàlla nu yàlla làq fu yàq yeggul yàlla bu noonu mun suñu dara allahuma ikfinahum bi ma chita allahuma ikfinahum bi ma chita allahuma ikfinahum bi ma chita yàlla ñu yàlla fegal bépp xay ak borom xay yàlla ñu yàlla boole si xaaj bi jëm déwén yàlla ñu ko yàgga teewee ànd ak tal ak fekkee ku nekk yokk ba yëgal ko boppam yaa rabbi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla bu ñu yàqal kenn wante yàlla bu ñu kenn yàqal yàlla bu ñu yàqule ya yàlla yàlla dimbaluñu ci diine gi yàlla ñu yàlla dimbale ci tariixa bi yàlla ñu yàlla dimbale ci faydu bi yàlla mi sañ man te képp ku tatafu si moom am ndam yàlla ñu yàlla làqal boppam fu yàq yeggul yàlla yàlla yokk suñ ngëm yàlla yàlla yàlla yokk suñ ngëm yàlla baay radiallahu anhu seydi wa mawlaaya cheikh baay baraam soxna newoon na ni ndogal lépp nangu na ko ñu ne ko baay mu ni ndax fañ ko dogalee la isa jaa qudratullahi bil abdi la yazaalu abdu bil miqdaari kon jaam lenn rekk moo ko war mbooleem ndogali bu ñëwee sante ko yàlla mu neex mu naqari jaam munul kenn moo mun mu yàlla laa xawla wala quwata illa billah ñépp buñ daje woon ne dinañ la lor seen loraange googu ñu pexe ko teg ko nit yeeg jinne yi ñi juddu ñi juddoogul ñi nekk seen biiru ndey yi melentaan yi ñoom ñëpp ñu daje ngir lor la munuñ ko lu dul ne yàlla da si ànd bu si yàlla àndul munuñ ci yow dara ñépp buñu dajé won né dinañ la jëriñ mindeef jinné yi ñi yalla dogal ñu judd ak ñi juddogul yépp ak yenti yent yi né dinañ la jëriñ yalla bu ci mu munta nek kon yalla na yàlla nekk suñu ndimbal ndimbal kenn rek moko yor mu yalla motax abdu bil miqdar jambi munta deñ muk dundusi si suñu borom Cheikh Ibrahim ñaan na ne yow yàlla ñu ngi lay ñaan suñu xol yi bu ci dara nekk lu dut yàlla ya rabbi bi zati wa fi sifati fa kunna fi sa'ir al halat yow yàlla ñu lay ñaan si mbolem xali rek yal yàlla nek suñu feñ way fofu te dara amu fa sax lu dut yàlla rabbil qulubuna ala al iman bàyyi yow yàlla ma ngi lay ñaan nga saxal suñu xol yi si yàlla kon suñu xol yi ما يقم yàlla يرى يتقطع عليك صلاة الله ثم سلام فإن فؤادي عندك الدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلام